transporteurs yi ils se croient tout permis lobby la bo xam ne nañ né sen xaalis bi ñu am ku leen neex ñu jëlee la fi ku leen neex ñu teg la fi parce que man dama dem en un moment lool la gis que ñom ñoom nañ né même directeur yenn yek bu bu ñuy saxatee ñu téye seen oto te ñoom dawaluñu oto yi ñun travailler ñoy dawal auto yi tay la preuve ané que tay bima né 15 h ku xey bu service de temps jotee arrêté oto yi defe naa travailleurs yu bari def nañ ko ils ont suivi le mouvement donc kooku avertissement la on peut frapper fort mën nañu door mu metti mais nak comme nous, les patriotes nous allons vers des élections le président Macky Sall je le répète 500 fi 500 emplois à mandat de 5 ans mandat bi 7 ans amul y emploi bo xam ñun gis nañ ne def nañ parce au niveau de l'AFTU y a presque 000 et quelques travailleurs dans la précarité Nous, pour régler ce problème nous avons créé un créer emploi emploi il suffit de les régulariser Autorité tok à commencer par le chef de l'État je dis que patriotes lañu moo tax lundi xëyuñu téy auto yi té ñu ngi ci ouverture des classes suñuy doom suñuy jarbaat dañu wara xey di dem jangi donc loolu yëpp dañ koy soor mais nak une semaine lañ leen mayaat de su boba ñu délo buy si mbooy mbooy ba. né nak né processus bi à partir de lundi ñu démarrer ñun ak ñom ak autorité yi ak euh, les employeurs autour d'une table ñu invité ay experts ak inspecteurs du travail ñu euh, ñu impliqué ñu si processus bi pour que ñu jëm si calvaire bi nga xam ne moom lañ doon dund mu jeex. les points yi si si contrat lay jugee muy ipress ak couverture médicale ak eh, congé ak lolé bu contrat bi amé horaire de travail bi fay lèr parce que quelqu'un qui a fait 13 ans ou qui a fait 10 ans nga bëgg ko signal tey contrat en 2018 il perd point yi mu waroon am ipress il c'est congé mais kooku dañu wara tok ñu xayma que ñu fay ko kat bi do koy signal tay contrat mu xamné mi ngi soog a am contrat tay